أصحاب المعالي وسيادة الأئمة والعلماء والمقدمين والمريدين والأحباب أيها الجمع الميمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنها لأنفاس طيبة ولحظات ميمونة وخطرات لطيفة وآفاق واسعة في فضاء الذكريات الخالدة لشخصيات لشخصية يجب أن تجلى نقوش, نقوش آثاره على صفحات التاريخ الممتدة كامتداد آماده والمتوالية كتوالي أمداده والجلية كتجليات مآثره على مرآة ماضيه وحاضره إنه باب حضرة شيخ الوقت وحبيبه الأول وأمينه المنصور وكاتبه المشهور وخازن سره وقلم فيضته أبو الحسن السامي المنيف الملاطف سيد علي سيسى رضي الله عنه من قال الشيخ إبراهيم في حقه علي خديمي خازن السر كاتبي لتزيين مدحي قد على كل فائقه وأثبت خلافته عنه بقوله ما خلفت سواه وقوله فهو شيخ أولادي وأصحابي وخليفتي بعد الله فيهم كما أكد ولايته بقوله إذ هو عالم وهو تقي بل قد نشا وهو كذا ولي وقد قالوا من صحت ولايته وجبت زيارته ونحن في هذه المناسبة المحفوفة بالعناية الربانية والنفحات والأمداد القدسية نتوجه بأشباحنا وأرواحنا بالتهاني القلبية والزيارات الخالصة لجناب الخليفة المعظم إمام جامع مدينة العتيق وراثة محققة ومتحققة كابرا عن كابر من نهدت فيه همة جده شيخ الإسلام حين قال في حقه فإلى الأمام جدا وتشميرا وتحسينا والله المستعان فعجزت عن رسم مبانيه الأقلام وكلت في درك معانيه الأفهام وصدقت فيه تنبؤات وتحققت فيه الأمنيات حيث يقول والده عنه وعن إخوته في معرض الدعاء وسماه الحاج إبراهيم بالقطب المكتوم والختم المعلوم مولانا الشيخ أحمد التجاني ونطلب من سيادتكم أن تدعوا الله لهذا الولد ولإخوته قبله وبعده أن يكونوا صلحاء علماء كرماء نجباء عارفين بربهم عاملين بعلمهم محبوبين مقبولين مؤيدين منصورين مؤمنين محقين متحققين كما أرخ لميلاده بتاريخه فبلغنا المرام فنرجو بلوغ المرام في الحضور أمام شخصيته العظيمة كما قال داعيا له وأرجو الله ببركة مسميه ومسماه أن يكون عليه بركتهما وأن يكون من أهل الكمال ولا يخفى على أحد ما خص الله به هذا التوض العلمي الشامخ والجبل المعرفي الراسخ صاحب هذه الذكرى من المناقب والمزايا والخصائص والخصوصيات التي تضيق عن إشاراتها فرص الحياة فضلا عن تفاصيلها مما جعلنا نركز في هذه العجالة على النقاط التالية مفهوم مفهوم الصحبة الدينية بين المريد والمراد خديم الحضرة وقلمها الأمين مربي أولاد الشيخ ومعلمهم شيخ أهل مدينة وإمام مسجد العتيق مبعوث الشيخ الخاص وأمين صندوق الحضرة وارث الشيخ وخليفته بعد الله في عياله وأحبابه وكيا السلام وكيا سلام عليكم ورحمة الله آه، gannaaw bu ñu tàmbalee ci kaddu yooyu ñi ngi nuyu ñëpp di di ñaan ndigal ci kàddu ñu fi nar a jël ci kanamam di ko di ziyaara Seydi Ali ci moom li ma tënk noonu ci arab mooy ne Seydi Ali Cissé waliyu la ku ko sedde loolu mooy waliyu wàllu yi muy Cheikh Ibrahim ca Rihlal Konakriya mi ngi wax ne Seydi Ali dafa sosu ci wilaaya te su fi dañuy wax amuñ sikk ne suñ ziyaara bi ziyaara bu ñuy nangu lañ doon yu teew ci kanam mi njawootam gu tedd gi ci kanam imaam di ko ziyaara ma ne imaam ittey baay la ndax gis nañ lettre bi ko baay bind weeru kóoram yu mujj ci kaw suuf di ko ndokkeel ci examen yi mu admee ne ko doxal jëm ci kanam ci fàggu ak ci jot lépp luy ngëneel nga nga jot ko ma gis tamit fu waajuram si daali Cissé tënk taarixu gane àddunaam di wax ne Baye moo ko tuddee abul fayd muy Cheikh Ahmad Tijaani radiyallahu anhu muy ñaan yàlla def ci moom barke kiñ ko tuddee ak barke ki ko ko tuddee muy Cheikh Ibrahima radiallahu anhu ma ne tamit beneen ndollal la boo xam ne jaroon na ñëw ziyaare si Sidi Ali ci ron keppaaram di wax ne point yi ma bëgg waxtaanee rek juróom benn point la bi ci njëkk mooy mafhumu soxba al abadiya bayn al murid wal muraad nuñ mën a déggee kàndoo diggante Seydi Ali ak Cheikh Ibrahim nga xam ne kàndoo yi kuy ut njëriñ la ak ku dajeeg jëmi njëriñ muy Cheikh Ibrahim waaye danañ ci gis ne kàndoo gi dana dem a dem ba Seydi Ali moom ci boppam mi nekkoon murid mujj nekk di muraad te loolu bàyyi moo ko ko saxalal ñaareelu point bi mooy ne xadimul xadra bàyyi ko ko tuddee bàyyi ko tuddee woon xaadim ca Koosi boobu dara xewagut mu mujj tëgg ko faayil muy xadim mooy liggéeykat boo xam ne doo wàcc mukk sa guddeeg sa bëccëg yëpp ci bàyyi nga ko def xalamul faydati bàyyi ko ko tuddee gis naa lettre bu ko bind نانكو خالام الفايدا بندل لاتر مجم تي نقباوي مجم تي تي ماغي طالبي مربي اولاد الشيخ ومعلمهم موي سيرني دومو باي تي مولن جانغال لوليت تي ديغالي باي لاكو دافي دانكو غيسي بير وقتان نينتالي بوين بي موي سيرني وا مدينه تي موي اليمان جمعه dañu gis na loolu it bàyyee ko ko yaqalal moo ko bind ci lettre boo xam ne mbind loxoom baa ngi fii mooy envoyé spécialu bàyyi moom la daan yónni fu ak ci alalam ak ci lépp lu muy dépense bu jëm ci këram point bi ci mujj mooy ne waarisu cheikh wa xalifatuhu baadallahi fi wax wa ahbaabihi loolu tamit du samay wax waaye waxi bàyyi la boo demee ci wasiya bi mbind Paris muy dénkaaneem ji mujj da nga fa fekk mu wax ne yàlla mooy utalam ci njabootam ak doom ju baax ji liggéeykat bañ gën a gërëm muy Seydi Ali Cissé baax na bala ñu waxtaan ci moom ñu wax dara ci askanam dafa am cosaan ba pare cosaanu askanam yépp ci ndey ak ci baay alquran la ak diine ak jub ak jubale maamam àndala buri maam àndala buri mooy maamam kooku Sénégal yépp xam nañ xam-xamam ak taxawaayam ci diine ci Saalum njëkk sax mag ñi di jógee Jolof di toxu si fii di ñuy ñëw di dimbalee Maba ci xare bi 1865 fekk na mu nekkoon fii taxawal diine di ko doxal di dox jàmm ci diggante jullit ñi ba wax nañ ne bi ma ba demee xare ca Jolof sax te am kuñ jàpp ne moo ko boole tubaab yi ne génn na Saalum te si ñëwoon na pacte ne du dem Jolof ba jullit ñi nar a rayante xeex seen biir moom moo leen jubale ba jàmm ñëwaat loolu boo demee ci essai sur le le RIP boo xam ne tafsir Ousmane Ba moo ko bind ci université Dakar boo demee ci bulletin IFAN yi da nga ko fa fekk muy wax ne tafsir àndala buri moo dox jàmmu ba jàmmu ñëwaat ci biir réew mi xam naa loolu tax Cheikh bu Bousso mu Cheikh Ahmadou Bamba bi mu ñëwee fii gane si Baye gis Cheikh Seydi Ali mu ñëw seet si Baye gis ne lim dégg yëpp lim fi fekk ko dàq ci njub ak ci juble ak ci taxawal diine mu gis Seydi Ali xàmmee ko xam ne sëti àndala la mu def jumu ci bayit boobu nga xam ne bokk na ci tooru Alfiya ibnu Malik da nga ko fa fekk يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثك فما رأي كمن سمع من سيد علي يا ابن عندلة ألا تدنو فتبصر ما قد حدث فتبصر ما قد ها نحن قدمنا من سيد علي سيد yow doomi àndala ñun dañu njege si nañ gis na gis nañu ak suñu bët ne gis daal bokkut ak bokkut ak dégg kooku mooy àndala maamam moo jur maam Birane Cissé ñu ne mu am ñaari doom kenn kii tudd àndala Absa kenn kii tudd Assane Thiané Andala Absa nag moo jur maam Alassane mi nga xam ne moo jur Sidi Ali Assane Thiané moo jur maam Samba Thiané mi nga xam ne moo jur maam Aïcha Jama mu jur Sidi Ali Cissé kon ci wàllu ndeyam ak ci wàllu baayam yëpp xam-xam lañ leen xamee boo demee ci maam Samba Thiané nga xam ne moo ci njëkk a xam maam alaaj ci famem jàpp ci moom maam alaaj dina ko àllaaxira day bu ma fa amul lu may benn tip maag yow a koy bokk moo njëkk jàpp ci moom am ci moom lijaasa baaxee ko lool ba maam yi di ñan ñenn ci euh, nit yi euh, rippi pour songu Taïba soxna doomi maam Samba Thiané boo xam ne may nañ ko muy sëy muy sëy ñooro moo dégg pexe ya yebal nit mu ñëw wax si ko maam Alaaji kon nga gis ne loolu ci la maam Alaaji waaj mook taalibe yi génn dem dem dem réew yi boo ñëwee ci wàllu baayam maam Alassane moom it di borom alquran mun alquran lool te goreel ko di ko bind ba bind euh, tafsir jalaale ni bi maam alaaji daan tey di firé boo ko xoolee mbindam mbindam loxo la maam alaaji gën ko bëgg ko lool ndax mën gi xam ne mën na ko alxuraan mu jàpp ci maam alaaji mu jox ko lijaase yi mu am ci tariqa yëpp gis naa lettre boo xam ne mbindam loxoom la moom maam alassane muy wax ne maam alaaji yaay suma baay yaay suma xarit yaay suma soppe te yaay suma yaa xorata yaay sama sedd ak xol euh, euh, gis naa lettre yu bëri yoo xam ne tamit euh, bi moom maam alassane moom bind na ko muy nit ku sell koo xam ne bi mu génnee àdduna ñu ngi fekk ci ron njegeenaayam mbindam mbindam loxoom boo xam ne ñi ngi ko amee muy wax ne yonent bi feeñu na ko jaar yàqalatan laa manaam te loolu bàyyi ne na mooy dayoo ah, ah, mébét yi góor yàlla yi kon ku juddoo foofu leer la gu sosu ci kaw leer moo tax Seydi Ali mi ngi taarixal bi waajuram wu jigéen génne àdduna mu maam Aysa Jama mu ngi bind li ci xew yëpp mu ne ah, bi bi kamaaliha baana rashaduha مولا تاريخ لي ابي مجلي عبد 1363 مون بو كالكيلي حروف يوي وبكمالها بان رشادها كي اك ماتام لا اك نيوبم فاي رك دا فاي تولوك اد ميم ген ادنا ديكو باي دي سيدل لي مو واخ موما سي غنا ايتيل مون باي بيم كو سيدل داف نه سوخنا كرم صالح لا تجورنا صالح مانام واجورم سيدالي واجورم جيجن باي سيدل نكو دي صالحه لا واجورم بو غور مون صالح لا تجورنا صالح مو سيدي علي سيسي لون نك ak calale goo xam ne leer la rek ci ci ci ci kaw leer euh, biñ génnee àddina maam Alassane dafa fekk maam Alaaji nekk ci tawat mu yónni maam Khalifa taawam mu dem waaye tuuti rek matul weer daanaka ci la waaj moom tamit dem Jooson bi mu demee fekk fa maam sàmba mu ne ko bu laaj lu mu bàttalee mu ne ko Seydi Ali mii la la la la bàttaleen ngi gis nañ marché bi maam Alaaji santoon bàyyi mu def ko boobu moom siiw na boo demee ci diwaan bi ci jaami jawaab da nga ko fa fekk ci diwaan bi mu def ci Cheikh Tidiane ak ci kàngami ci kàngami tarixa bi da nga fa fekk bu bàyyi bi bu ma laaj moom Zeynabou bi ñu bëri gisuñ ko moom it def na marché bu rafet boo xam daf ko def sax gannaaw bu maam Samba Thiané génne àdduna mu boole leen ko ñoom ñaar هذه الرزية لا رزية مثلها مطرد الحسن الكريم المعتلي من بعد سامبا ملاذ أهل زمانه ذي الحفظ والمجد الصميم الأكمل فاق الرجال تخلقا من كل ما يدل الإله بكل وصف أجمل حفظ الكتاب وحافظ رحماهما ولرحمة صار بأجر أجزل مالا إلى نهج الهدى في ذا الزمان وخلق ربي كلهم ذو معدل أخذ عن الشيخ المربي سيدي عبد الإله إمامها ذي الفيصل وهو الذي يكفي الذين بنهجنا سعدوا بها عن كل ذنب أفضل فليبكي ذا من كان خائف ربه نقصانه في الدين غير مخلل موت العلي في الدين من سلاماته أو نقص أرض عند كل الأعفل bam jeex xasida bu gudd la wax cër yu rëy yi jikko yu kawe yi nga xam ne nekkoon na ci ñaar ñooñu nga xam ne kii mooy maamu Seydi Ali ci wàllu ndeyam kii mooy maamam ci wàllu baayam Seydi Ali xasanatu mën nañu wax ne xasanatu min xasanati xaaj Abdoulaye li bàyyi wax ne alhaji Abdoulaye taawam bi bi aji màkka ne ko ñun lépp luñ ne rek mbaax la ci mbaax alhaji Abdoulaye waaye loolu mën nga xam ci Seydi Ali mi la tàmbale ndax maamu alhaji la ko baayam bàttale moom moo ne kii ku ko booleeg Ibra mu dem boole ko bàyyi te yaakaar naa ne kenn du werante njëriñi Seydi Ali Cissé xam naa ne topp toppam bàyyi moom ah, Seydi Ali comme taw la ci ñoom ku ci nekk rek am da pepp wala toq boo xam ne laal na la ci moom moo am ak bàyyi te ngi rëccuwut ànd ba ndax ñu ne ci mujjëg dundam ne na man de lépp lu sama baay bëggoon ci man am naa ko lépp lu ma bëggoon sama naa ko lépp lu sama sëriñ Cheikh Ibrahima bëggoon ci moom am naa ko loolu nag dëgg-dëgg mooy murit boo xam ne mujj na nekk di di di di muraad ni ñu ko waxee ci njëlbeen ànd ak àndam ak bàyyi nag duñ ko tënk rek ci àddina bi ndax bàyyi nga koy wax ci benn lettre boo xam ne safar 1362 la ko bind ne ko mi euh, mu koy melal ne mooy jëmm joo xam ne ba mu sosoo ba ci jëm ba fi ñu doon yàlla ji ñu nekk mas na mooy sama ndigal ba mu sosoo la wax waxul ba mu ànd ak ma kon kooku da ngay xam ne àndam ak bàyyi du ci fii waaye tojitu tojitu ruuxam la te fa mu ànd moom fu fu fu yàgg la yonentu sallallahu alayhi wa moo noon maay njëndil xam-xam te sidna ali mooy mooy buntu njëndi xam-xam loolu te Cheikh Ibrahima dafa doon yonentu ci lépp seydi ali mii mooy ali mëne rek te loolu euh, Cheikh Ahmad Dame doomu Cheikh Ibrahima al Xalifa am na ci mashhad boo xam ne euh, ama bawaariqu nasrina barakat 1373 dafa gént mu ne euh, bàyyi oo ñu ñëw mu tànn ci seydi ali yonent bi tamit oo Sidna Ali Sidna Ali ak yonent bi taxaw ci benn ron gambu benn kuppal bàyyi ak Sidna Ali taxaw ci benn ron gambu mu ne waaye booy xool yonent bi ak Sidna Ali dafa mel ni booy xool Baye dafa mel ni yonentu ngay gis booy xool si Seydina Ali Cissé mu mel ni yow Sidna Ali boo koy xool mu mel ni Seydina Ali Cissé ngay gis loolu di wane ne loolu wiraasa gu wér la waaye ni ko Baye melalee ci bayti bi ma wax ci njëlbeen aliyun xadimi xaadiru sirri kaatibi di tazyini madhi qad ala kulli faayiqi ci laa bëggoon ñu taxaw ndax Baye bayti yi jiitu bayti boobu ci aw saqul ura dafa wax ne yàlla moo fekk njëndam yi këraw yi ba yàqkat ku gën topp wala ku henu fitna du fa ñëw mu ne yàlla moo tànn am toppam ba yi gën sew ci dégg-déggi maarifa yi yàlla rotal na ci xolu xolu ay toppam mu sett ci Seydi Ali na na aliyun xadimi moy sama kat xaazinu sirri moy sama magasin wu secret sama secret ci bobu la koy denc kaatib yi mooy sama kat da nga gis ne waxna na ñël benam khadi khadim lako don owe oowee na dem banan ba nek khadim moy liggéeykat kat bo xamne du wàcc mu ci ñël benam fi ci ñël njëlbeen da nga deg mu nan katib waye mujj na nan këttaabati mu muy mubalagha ci bind kat bo xamne du noppalu mu moy bind la tari moy soti téré yi mooy toog di fite ñukoy ñukoy ñu mooy bind lijaasa yi mooy yebal gan yi mooy bind xutba yi muy dem léeg-léeg bàyyi wax ko ni mu war a waxee léeg-léeg bàyyi te ko li muy wax léeg-léeg bàyyi sax junj ko mu wax léeg bu jox ko ndigal sax te junj ko mu wax loo xam ne dëppoo naag li Cheikh Ibrahim radiallahu anhu bëgg kon xidma boo ci duggee ah man istaxdam naahu qaddam naahu la sufiyaa ngi koy wax kuñ liggéeyloo rek dañ lay promote defal la promotion waaye dëgg dëgg kii am na promotion ndax lé leeg nga gis bàyyi di melal ci lé leetar da ngay fone baye bopam lay waxal waye lolu moy khalifa deug ibn ajib al hasani daf ne ku am deug ak mbëggeel gu wér am inaba wali yu bi mat daf lay soti léppam ba melni soti na la bopam lolu tax baye bu koy melal mu melni bopam lay melal te loolu lettre yu bari yo xamné ne ñu ko amé dang ko ci gis mu koy owe yaay khalifa nang ko khalifa Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu loolu mooy deug degg ci gatal moy donu nga ma rek moy bind bindkatab bay te lolou ñep xam nañ ko ñi min bind bay yep xam nañ ko bo deme ci tawassul bi Cheikh Abdoulaye Dieng ba def nga xam ne mi ngi tawassul ci kàngami muqaddam yi naar yi nek ci Mauritanie mi ngi tuddé tuddee mi ngi ci tudd Seydi Ali te Ali du sax wa Mauritanie nan wa katibul wa kaatibi al mashhuri xaasini sirrihi abi xasani saami al muniifi al muraatifi bindkatam bu sew siiw bi nga xam ne moy dañ ci mbootam mooy bàyyi alxasan mu kawe mi te te ñëwé ci lool moy wettali bay ci tag gi mi tag yentou bi te bàyyi ne na li gën ci waxto moy waxtu mi tag yentou yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam sallam Seydi Ali mo ci wettalam ku yàlla baxé ba nga gis euh yi gis intimité bi am digënté ak Cheikh Ibrahim lélé mu tag yentou ba pare sax bind ci lettre Seydi Ali Cissé radhiyallahu taala anhu te lolu lolu du jeex gis na mu nan ko euh fa la ci manasiku ahlil bidat naan ko wa ahlu zaman yi kullum xayru faisin li ñu ko doon wax mu ne ko man daal ibaara bi bëgguma ko bëggumaa njëkk a dàq texe gi damaa bëgg nga nga bindal ma ci palaasam wa ahlu zaman yi kulluhum faada raqiyan siwa man xalaa nax ji asira hawa yi ibaara bi moo dàqal la ma njëkkoon a wax effacé ko léeg-léeg mu ne ko xidma bi mooy xidma bi mujj ci at mi ndax at maa ngi jeex bàyyi liggéeyal yonent bi tagg ko moo ci gën a kawe ci moom te tagg ko mooy xidmaam gi gën a mag te Seydi Ali Cissé moo ko ci wéttali ba muy wax séddaani Cheikh Ahmed Sukayri ne ko dénk naa ko sama taaw Seyda Fatima daf na ko borom xam-xam la ndax maa ko jàngal waaye li may bind yëpp moo koy sotti mooy sama mooy sama bindkat mooy mémoire mémoire yi fayda bi maanaam fayda bi boo soxlaa xelam mu xumi nga xam ne ci la secret nekk mooy Seyda Ali Cissé radiyallahu taala anhu loolu ca loolu ca loolu ca Koosi la tàmbalee gis naa lettre yu yàgg yoo xam ne moo jiitu faydu ak yoo xam ne sax atam faydu bi la bi ma ci gën a neex mooy lettre boo xam ne mu ne bàyyi daf leen di nettali ba muy dund lii muy dund maarifa gu neex gi mu leen di sotti te amagu ci kenn ku ko wéttale lettre ba mu bindoon Abdoulaye Wade Bulxaaj mu ne jotaay lettre ba leen bàyyi doon nettali ne leen daal dafa mel ni damaa nekkoon borom askan borom alal borom teranga gu nekk safara ñëw lakk ko mu jeex may ñaan ne dem na te yàlla bu mu dellu seeti mu ne ba mu bindee lettre Abdoulaye Wade Bulxaaj lettre boobu ba mu yeggee mu di tari dafa yore lettre bi di ko wan gàdd gi yëpp di puukare woo am ku mel ni Cheikh Ibrahima radiallahu taala anhu si daal si daf koo bind ci kayit gi ngir bañ ñu fàtte ko boo demee ci jawharun nafis di bàyyi joxe mag ñi lijaasa ba defal leen jotaay boobu ne leen ndax gis ngeen lijaasa yi ma leen bindal am ngeen loo xam ne nii kenn amu ko fii nii ci tund wi mooy jokk gu jokk gi te jege loolu Cheikh Ahmad Tidiane radiyallaahu anhu loolu daf ko yaxal ci kayit ngir bañ ñu fàtte ko boo demee ci ki fi njëkk a mokkal alquran muy Seydi Abdoul Wahab Faye daf caa bind rapport boo xam ne 1937 loolu ngir bañ ñu fàtte ko naka noonu taarixi faydu bi yëpp bu sànkoo noonu la xamatuñ ci dara buñ daloo ci kaa gi Seydi Ali Cissé rek mën nañoo bindaat histoire faydu bi yëpp euh, ni mu melalee faydu bi loolu doo ko gis ci beneen xalimba da ngay gis muy wax benn lettre boo xam ne 1949 la ko bind ku ñuy wax Sidi Muxtaar Dia di muqaddamu Baye di waa Guinée te dëkkoon Mali lettre bi Sidi Ali mi ngi ko taarixal ne at mi mooy kamaalul bichara ci xal la mbég gi gën a mag mbég la gi gën a mag wàcc na mi ngi wax kooku li xew ci Medina xibaar yi waa Medina ne ko li fi am daal mooy duxulu naasi fi tariqati afwaajan afwaajan وكثرة السالكين والواصلين والواردين من بلاد شتى شرقا وغربا عربا وعجما فمنه من قضى نحبه ومنهم من ينتظر في دار اللي في خمسة كان عموين إن يعني ببدي دوب التاريخ بأي كله كله تلو الموي ديفينيشن في فايدة بشيء أحمد تجاني جو خوان تنج من كوفك تالي فايدة الأحمدية واي بولو ماني نيو ني دي صوب ني هاغ ني غادي يروح تيجي فنك بينكو كارفو عربك عجم am na ñoo xam ne ñoom dee nañ ba pare jeex nañ ci yàlla am na ñoo xam ne ñi ngi muñandi te loolu aaya alquran la yàlla moom la mel meññ melalee ñi dëggu ñi nga xam ne ah dëgg-dëgg ah, liñ dëëleeg yàlla ñooy loolu fecciwuñ ko te Cheikh Ibrahima dafay wax ne ñaari shahid moo am ki nga xam ne dafa dee ci lalu xare kooku shahid la ki dee ci lalu loolu mbëggeel nga xam ne jeex na ci yàlla kooku siddiq la am na beneen lettre 1951 mu bind ko mbokkam Sidi Mouhamad سيسي دومو euh, baayam di magam ne ko wa ubashirukum bi rujuu cheikh سالما وغانما وقد انتشر الإسلام والطريقة في في, في تلك الآفاق على يدي انتشارا مارئا قط منكو فالحاصل أنه أرشد وأفاد وأوصل إلى الله وقاد وأيقظ وأنار وأحيا والحمد لله أولا وآخرا نمال لي ميشيون باي تي جوم نياري بوين لولو موما يم تي ديسكريبسيون بوبو من دال بو تنكال ميشيون باي تي غانا yóbbu nag yokku na fa lislaam ak tariqa bi yokku goo xam ne mosuñ koo gis bàyyi mu ne juble na jëriñe na àggale na ci yàlla xommat na xëy na ñi doon nelaw leeral na xol yi nga xam ne dafa lëndëm moom dekkal na xol yi nga xam ne dañoo dañoo dañoo deewoon bàyyi bàyyi ngi wax ak moom ci Medina gii nga xam ne leen séparé matul ñaar euh, ñaar fukki mètre di ko bind lettre bu set mel ni kuy bind lettre ku sori waaye bu génnee dem biti yi noonu lay waxee ak moom waxtu bu nekk ca Niger ca Nigéria ca Ghana ca Makka ca Arabie Saoudite ba ca Dakar gii sax dafay dem di ko yónnee lettre lettre yooyu yëpp dëgg dëgg xajut ci waxtaan waaye bu ci nekk rek doyoon na doyoon na conférence kon modèle la ci boo xam ne war nañ di ko nafat ci jamono ji ñu nekk ndax nit ñi xam lan mooy njëriñ ak nan la ñuy wutee njëriñ wax na fii ci ziyaara kaset boo xam ne ñu ngi koy dégg di wax ne buñ bëggee noppal nañu ut bàyyi ndax buñ amee bàyyi rek lépp luñ soxla mi ngi ci bàyyi nañ fexe ut bàyyi buñ jéem a ut leneen loolu leçon dars la boo xam ne war nañ toujours di jàngat sijaan yi ndax ñi mën di ko di ko di ko nafar euh, connexion ak Baye mësta dagg Baye di ko melal ci façon bu nekk nee na ko wax na ko yaay saani wujud yi yaa ñaaral sama ñaareel sama am gi yaa taxaw sama taxawaay bu ma jegee ak du ak bu ma soree loolu lettre la yoo xam yaakaar naa miin nañ ko di ko waxtaanee waaye lépp luy yox ci xadara bi rek bàyyi ci def ko muy courroie de transmission boo xam hamdatul wasli la diggante moom ak taalibe yi ndax dafa bëgg ñu jëriñu ci nit mënu koo waxal boppam suñu jaay Cheikh Mahamad Amin mu ne dañoo ànd ak bàyyi ci benn aéroport ñu toog xaaruñu leen am transit mu ne ma dem wax ak aéroport bi ne la yow la xarit bi nangam nangam ko Lamine kenn du wax ne may diw may diw kenn du ko wax nañ rek mu ne ñu am ku fa jaar xàmme bàyyi ñëw jëleen yóbbu sama dërëm mu ne ko waaw lii la waaye may diw kenn du ko waaye ki xam kan mooy diw comme Seydi Ali mooy mën a laay bi taalibe yi wax leen kan mooy diw moo tax da nga gis lu bàyyi di wax ak moom naan ko xale yi jaayante woon ak man ci taxaw liggéey liggéey jumaa ji ne nañ fexe remplir li ñu wax rek ma ma remplir li ma wax waaye déggal li leen bàyyi di diggal nañ fexe di julli ci waxtu tey jàpp bu ñu respecté loolu rek man li ma war ci ñoom danaa ko def taalibe yi ñu sonn ci taxanal sox suma soxna yërëm naa leen lool ci jaabante yi ci jéem a taxanal seen bopp waxtu wu nekk rek mi ngi baaxee taalibe yi di leen yoon wu ñu mën a jëriñoo ci baay ndax moom xam na kan kan mooy baay dëgg-dëgg borom lijaaba la woon liggéeyam ci baay du liggéey rek ci luy feeñ ñu koy teg ci bët waaye man ca ñaan parce que baay dafa gën a xam ni ñu yàlla xam ne yàlla li mu amee yëpp daf koy maye mu ndiru yonent bi nga xam ne gendeeku bu nekk mi ngi ñaan Cheikh Ibrahima waxtu bu nekk mi ci ñaan Seydi Ali ma nga moo jiite dog ya mooy amee comité ñaan ya moo nekk secretaire général nu ko baaw yi bàyyi sosoon nga xam ne ñooy gérer jumaa ji te ku wax jumaa ji wax na rek ñooy gérer faydu bi mooy secrétaire bi nga xam ne moo doon gérer la fay dox di gérer majlis shura bi nga xam ne lettre yi daan bind yëpp moo ko daan bind di organiser seen i dajee euh, gis nañ sax lettre bu ko bàyyi bind moom Seydi Ali di wax ne dafa am waari boo xam ne daf koy fàttali rek la xewoon ca waalansaari bi naan yenentu bi day ah, ba màng mi ñëwee yenentu bi di ko jox ñenn jullit yi lansaar yi ba am ñuy jàmbat naan yenentu bi ñi nga xam ne ah, ñenn ci waa Màkka yi ah, waalansaar yi naan ah yenentu moom ñi nga xam ne ñi ngi xeex ak ñoom seen deret yi woowagul sax ci suñ jaase yi li liñ fi am yëpp mu nar leen koo jox mu ne xanaa bëgg leen ñu yóbbu màng mi yéen ngeen yóbbu sama jëmm ji Cheikh Ibrahima mu ne dama leen di jox mbóot moo xam ne dana tolloog cër boobu ñooñu amoon Ah, te yomb naa def yónnee ko séddaal yi ne na ko jox ñi nga xam ne ñooy waa membre majlisu shura bi ah, cekkoo si la commencé xidmal bàyyi maa ngi gis lettre bu yéeme boo xam ne séddaal moo bind wulu nax wi wulu nax wi tontu bàyyi commenté wulu nax wi tontu séddaal yi bind bàyyi commenté ci benn page séddaal daf ne man amir bi dogal naa ne Mouhamadul nax wi moo àddu moo gàddu lépp lu aju ci attaaya si taalibe Mauritanie yi nax bi ni ci suuf ne amir lu mu dogal rek dogal na ci suñ kaw jogare yi nangu nañ ko bàyyi bi ci suuf ne lii de mooy liñ mébétoon yàlla def na ko muy dëgg lu nax wi dugg ne yàlla nañu yàlla jox barke yi mbóot mi ci barke yi ki joxe ndigal li ak ki ko ki ki ko feddali bàyyi bind haada yaa bilaal la la la yonentu waxoon bilaal dund leen bul taxa bu ragal ñàkk mukk ku jigee mu jigee ci sa borom muy lettre bu yéeme boo xam ne ñetti ñetti kàngam yooyu yëpp ñu ngi ciy wax كيرون شيخ إبراهيم رضي الله عنه بروفيل رك نلي ما دروه نه لقيال باي تكوسي لتامبلة لول خارو رك بنيو مدينة موي سرينيو أي دومم لول باي كوا ا وحنا كوبي شامر دام دي دم مكة 1952 ا واي نيك لول سجفة نكو نح ما عندي كيس بن قصيدة تأوسق القراء جعلت رجائي في الذي هو حاضري باي بنكو بمجاتي سوف mu naan ko Seydi Ali bindalal sama doom Roqaya téere sàngam jox ko yaayam mu takkal ko ko tey jii te sama yaay nee na boobu ñoom dara gu dara sax boobu ferantal kon ba mu yàggee toppatoo njaboot gi ci ndigali baay ci ñaan ak ci jëm leen a fexe bañ dëgër loolu nekkaguñ sax mbañam rus biñ demee ba magi dooloo continuer ndax lettre yu mun si xamad bàyyi bind si xamad daam bàyyi bind Seydi Ali di ko wax ne waajalal sama doom Ahmadou mu dem Màkka na nga ko dénk fa awlaadi talaamisatuka لا تتركهم هملا إني لم أجد الفراغ الواجب في تتبع شؤونهم وعليك بركة علي علي التماسني وعسى أن يسافر اليوم إلى دكار لتهويه للباخرة نكو سمرمي doom yi سي naa من أمجد say taalibe féex bu leen boyal taxawal ci seen mbir yàlla yàlla def ci yow barke Sidi Ali Tamasini Sidi Ali Tamasini moomu boo bëggee xam mooy kan moom la Cheikh Ahmad Tidiane dénkoon ñaari doomam yi ne leen yóbbu ne leen ne ko yóbbu leen ci Sahara ba nga nga nga yar leen foofu mu taxaw leen méngoo bokk ci ñi leen di jàngal ama bushraya bi qawlika 1952 bàyyi ko bind lettre boobu bàyyi Amadou Thiam di leen ndokkeel ne yéen ñi taxaw sama doom yi taxaw taalib xale yi ba seen xam-xam yegg fii na nga leen examen ku jël P premier ñu neexal ko ki jël deuxième noonu ki jël troisième ñu ñaanal ko bàyyi ne leen bay bayti yi ci suuf nag maa def tashtir ci xulaasa alfiya bu ma indee bayti borom alfiya indi sama bayti bopp pour soññee ko xale yi ci ci seen jàng noonu la sonnee woon ci seen jàng waaye seen tarbiya ma ne lii tegtale ne booy seet bàyyi na na Seydi Ali mooy aarif billaay boo xam ne léppam dafay tegtale yàlla xool xaqaamam rek dafay tegtale dafay tegtale yàlla nga dellu ci définition ba borom mursid waxoon ci wali yàlla mooy koo xam ne boo ko gisee fàttaliku yàlla waaye bàyyi jël njabootam yëpp njabootu deret ak njabootu maanaa ne ko tarbiye leen boobu ñu ngi bër ci jàng bàyyi warlu leen ne warlu naa leen ngeen àgg ci yàlla balaa bër bi di jeex bu ngeen ma tibbalee suuf pour ñu tabax jumaa ji nga gis njëriñu ma ba tey feeñ na foofu jërida bi mbind bind jërida saalikiina wa saalikaat seen tur yëpp a ca ñu ngi ko ame suñu waajur yëpp a ngi ca ci góor ak ci jigéen ah, loolu mooy wane ne mooy seen sëriñ moo leen yar yàlla mu def beneen liste boo xam ne ni ni seen àgg jiituwantee àgg ci yàlla do liste boobu tamit noonu la ko defaree bu ñu jàng ba àgg ci firilu alquran tamit bàyyi daf leen wax ñu dem ci moom mu defar liste boo xam ne seen tur yëpp a ngi ñoom ñëpp seen tur yaa ngi ci ñi ko ame pour bàyyi firil leen firil leen alquran kon dëgg-dëgg taxaw na ci ñoom Seydi Ali mu al xalifa alxaaj abdullahi suñu sang ne tali na ma ne bàyyi alxaaj abdullahi moo ne ko bàyyi bi ma tare alquran dafa wax sëñ Ousmane Ndiaye dalal ma lax dal yi tàmbali rek mu génn mu jox dénk ma Seydi Ali moo ma jàngal li ko dale ci laxdar yi ba ca Alfiya ibnu Malik maanaam bàyyi doog maa jël dugg ci balaaxa ak shuaraaw firil ko alquran mu am cër bu rëy ndax oustaz nekkee gaana 65 mu ne na ko bàyyi de mi ngi firi alquran waaye man kenn lay firil waaye da ngay gis ne kon jàngam li ci ëpp ñu ngi ko jàngee ci Seydi Ali Cissé te moo ko tarbiya ah, loolu day firi rek ah, cey Cheikh Ali Cissé ak fonk gi ñu ko fonk fonk gi ñu ko fonk ñoom doon bàyyi moom fonk na leen lu ko raw ndax maa ngi gis daal di xaaj Abdullahi al Xalifa bind ko lettre bu yéeme waaye dafa jàllale bi lettre ba la zaxiratun ataladu biha ila abadil abadi min sami min min ibni cheikhi wa sami walidihi cheikh alxaaj Abdullahi Assani atal allahu baqaahu lettre boobu li ko ci xaaj Abdullahi di wax mooy dama damaa yàgg a xam sag mbaax ak sa tey gi sa roxo gi tey waaye nag yaatu feeñuwaay bi ma feeñu ci jamono mbaax gi ma gis yow dëgg dëgg mosuma koo njort donte sa baax ak sa ruxagu tey gi yàgg naa koo yàgg naa koo xam lettre bi ñu ko ko bind Makka 26 Dul Hijja 1300 1385 noonu la leen bëggee woon ñoom ñëpp taxaw leen ci lépp da ngay gis ne même gannaaw bàyyi kóllëre googu mi ngi continuer ndax gis naa lettre boo xam ne 1976 gannaaw bàyyi bi mu ajee Makka ànd ak Cheikh Cheikh al Khalifa al Haaji Cheikh Ahmad Tidiane ibn Cheikh Ibrahim ak Baye Ibra Fall mi ngi bind lettre xalifa euh, Alxaaj Abdoulaye di ko wax euh, Papa Cheikh mbaax gi mbaax ak nooy gum nooy mi ngi koy ñaanal yàlla yàlla ko yàlla fay taxawaayam ci ñoom waaye toujours mi ngi itteewoo mbiri dépasse yi kër baay yi lettres yooyu da ko ci gis mu ko ci wax ak lettres yi jëm ci suñu maam maam Zeynabu muy bàjjen Gay gannaaw Cheikh Ibrahim taxawaayam ci ci kër baay loolu dafa nekk loo xam ne lu saxla woon te ca bàyyi la woon Cheikh Ibrahim la la tàmbale xamna naa teub lu bari lettre yi ñu min rek ci mom dama gis ben ben kayit go xamne Cheikh Hadi Ould seyd moy wacc pour dem defal bay mission ci Afrique bay jox seyd Ali ben liste bo xamne ñi ñep dafa wara war bindal lettre ci ñaari fan yi bala mo dem man dama xamut may dama la toujours nit naka la mëne bolé won liggéey boobu moy jumaa ji ak ittey bay yi ak talifam yi ak lettre yi wara dem ak sa soxlay keur lumay rek ku yàlla tàllalal sa jamono nga xamne ci ahlu daay ngay dund loolu rek moo ko mën lettre bi bàyyi na la ko Sidi Hadj day tukki jox ko lettre yi jëm plan alxamis yi jëm coota yi jëm ci ma alhaaji Bachir yi jëm ci mbokkam Ahmed Tidiane yi jëm ci Mouhamed Moustapha yi jëm ci Ahmed Rofa yi ci Mouhamed Gibrima alaaji Adama Azare Amiru Diega Gondo alaaji Aruna Amiru Diiga Malam Balaraba Mouhamed al Mahi Mali ak Mouhamed Mansour ak lettre boo xam ne dafa jëm ci waa Kano yëpp ak alaaji Malam Tidiane Ousmane alaaji Abdoulaye Sarga alaaji Mahmoud alaaji Mahmoud Ibn Alhaaji Hasan Dantata ak sama doom Seyda Umu Kalsum latin yi la pare balaa balaa balaa alxamis nga gis ne kii ma sa nopp lu bàyyi ne mooy këttaabati te bi mu koy wax ne mooy këttaabati lettre la boo xam ne damaan la ko defal ci lépp lu ne ci diwaanam bi ci mbóot ak ci secret ak ci ay jagle ak ci ay diyaane bàyyi mu ne gara mi ngi garant Seydi Ali mu jot ko te loolu 1933 yàgg na yàgg na lool lettre yi ni mu jëmee woon ci taalibe yi noonu la jëmee woon ci officiels yi ni ci nguur yi ndax liste bi bàyyi na la ko bindal lettre mu jëm ci sëñ Abdou Abdoulaye al Khalil raisul wuzara bi xurtum lettre bu Abdourahman ibnu Mahdi zaim diini bi xurtum Cheikh Majzoub ibnu Mudassir Omdurman Soudan ñi ñëpp bind leen lettre mu dem am na beneen document boo xam ne lettre rabitat alam islam yi ñoo bëgg defal bàyyi tarjama mu bindal sédaan yi ne ko fexeel nga bindal leen rek kañ laa judd fan laa jàngee samay taalib samay ittee mooy wër tasaaral islam ci tabax ay juma ak ci gindi nit ñi ak fexe ba formé leen li zaadu imaanan maa imaanim heure bu ko bàyyi waxee rek xamal ne mi ngi wax yoo xam ne seen masrab du masrab suufi waaye lim ci jublu rek mooy yar nit ñi bañ àgg ci ci xam yàlla ci xam yàlla ràññeeku loolu yëpp moom la ko daan waxee waaye ñeenteeli point bi bàyyi moo ne mooy sëriñi waa Medina lettre boo xam ne 1953 la ko ko bind ca Jëdda ne lettre bi mi ngi jëm xadar Cheikh Medina xam ne mooy sëriñu waa Medina di ko wan ne ñu ngi ci jàmm loolu nag mooy centre secret Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu anhu am na góor yàlla yoo fay dajeeg ñoo xam ne ñoom ñëpp zawquhum kal xaatimi mos nañ ci yàlla mos goo xam ne dafa mel ni mosu ibn arabil xaatimi cheikhul akbar waaye waa Medina kàngami waa Medina ñoo seddal Seydi Ali Cissé wiraasa googu te boobu xewagul Cerno Xasan Dem 1949 gannaaw boo xam ne ñaari at la nekk gu Medina nekk fii xalwa la ko yàlla wan الحمد لله آه، آه، من نفسا كارن نف لا أم مشهد بو خامن مو نيكو لم اند لم اندك تي لير اكتار بو نيكوت يونت بي ريك موم احمد تياني رضي الله تعالى عنه لا تي لم كوي خمال موي نه فيعلم من سيقف على هذا الرسم بان العبد الجاني الحسن دم راى بشاره للخليفه المعظم وزير القطب الفرد الجامع في التربيه والترقيه همه وحالا سيدي مولاي الحاج علي سيدي بن الحسن نفعنا الله به وبعلومه وأسراره وبركاته وأنوار حضرته وفويضاتها ونفحاتها وشطحاتها آمين من نفسا كارن نف موكاي وخنكو غناو بوم سيكنا اي سيكرام امنا غور لير كو رافت بوكو نيوال كو خامني آه، ما رات عيني قط ان لم يكن المصطفى صلى الله عليه وسلم فعين ذاتي احمد بن محمد التياني رضي الله عنه فقال لي قل لعلي سيسي إن له عندنا منقبة ومرتبة في غاية ما يكون عليه من العلو والشرف وهما في زيادة كل ساعة كأن علي سيسي سمع خطابه فخرج إلينا وقال لذلك الرجل ما قلت وكرره ثم قال علي سيسي الحمد لله وتلا هذه الآية إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وأنا من المشركين muy مشهد بو يمي يمي من كيكو فاجو ko feeñu ولا شيخ la wala cheikh dina ko am na martaba boo kawee kawe ak teraanga yoo xam ne dañuy dolleeku waxtu nekk te duñu wàññeeku mukk Seydi wax ko wax kii wax kan la mu baamtu li mu wax mu jàng aay bi euh, ne mi ngi mal yàlla li nga xam ne moo fent asamaan ak suuf euh, jublu na ko euh, wan gannaaw lépp yoon yu jàng yi jébbalul yàlla te bokkul mukk ci ñiy bokkaale Cerno mi ngi ko bind 1949 gannaaw loolu mu am beneen machad ci guddi kat ne dafa gis leer guy wàcc Medina leer gu mag sëkk bi mu ko waxee Cheikh Ibrahim mu ne ko loolu day kenn ku fi attan leer googu ngay wax mooy Sidi Ali laa am loolu tamit beneen machette la boo xam ne ci mbindam corno lañ ko amee wala maamu Mauritanie noonu lañ meloon ci moom yu ci bëri gis nañ wiraasaam te boobu dara xewagul 1938 ama bushra al qawmi ama ama bushraahu ci la misri di di ko wax ne ko bir na ma ne yaay xalifa cheikh azal ak abad te loolu li ci sama firnde mooy ne bëgg gi nga bëgg bàyyi bëgg gi mu la bëgg ak bëgg gi nga bëgg taalibi bàyyi ñett yooyu mooy sama firnde ci loolu كوني واخ محمد عبد الرحمن ابن الحاج عبد الله ولد الحاج دي دومي ولد الحاج غا خامي اجازه مام الله جيبي مندم لوخوم لا اجازه باي بي بيكو ولد الحاج جوخ مندم لوخوم لا ولد الحاج دوغا بن سي سوف ننا ننا دا فا بين باي لتر نكو دما لا نام لول ما تور ني نيما بن كويت ما غيس رك مو ما غيس موي بن سيد علي سيسي مانا لي دي لي دي موي خير الكتاب جاء من خير الكاتب موي گن سي لتر جوغي سي گن سي گن سي ادي بند amna kenen ci ñoom ku ñuy wax محمد euh, عبد الله ibn ibn al-Murabit ibn Ahmad ibn Cheikh Mamadou Hafiz mi jëlee woon mbir mi ci tariqa bi nee na Seydi Ali Cissé nee na bàyyi damaa gént ñu boole sama loxo ak Seydi Ali Cissé mais dañoo def ay cheikh cheikh lañu ma koy firee nag dolleeku ci yàlla goo xam ne du dakk mukk bi mu gisee Seydi Ali mu ne Seydi Ali Cissé yow sa wilaaya dafay feeñ ci zahir ak ci baatin ku janoog yow rek gis ko loolu Seydi Ali bindal ko ci bindam boppam waaye lettre bee mu bind bàyyi moom bindam loxoom sax man ci laa ko ci laa ko yore mu ne sëñ Ousmane Ndiaye tamit wax na ko monsieur bi mu am ci moom luy firi loolu waaye nettal naa fi gént Cheikh Ahmad Dame waaye gént alxalifa Cheikh Tidiane mu Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu 1965 mu ne dafa gént yént bi feeñu ko ci melokaanu Seydi Ali Cissé bi ko waxee Seydi Ali Seydi Ali yaxal ko ci mbindam loxoom ni mu yaxale lettre yi alaaj xalifa alaaj Abdoulaye di ko di ko waxtu wu nekk bàyyi ci boppam ooyee na ko xalifaam déjà 1938 ne ko ngi dem Dakar yaay sama imam ci jumaa ji di suma xalifa ci njaboot gi ak ci ak ci taalibe yi loolu wax na ko ko wax na ko ko ay yoon 1971 euh, lettre boobu am na beneen lettre bu ko bàyyi bind di wax na yaay suma xalifa ma keneen ku dul yow euh, te loolu dama ko def ci def yow laajoo ko nekkul na yaa ko laaj jox nañ la ko ci lu dul laaj ma ne loolu yëpp lu doon firi tegtale xilaafaam ci bàyyi te boobu bàyyi génn gut sax aduna ba ci wasiyam bi 16 zilhijja 1393 nga xamne ne ne yàlla moy sama khalifa ak dom ju bax ji ligey kat biñu gëna a muy Seydi Ali muy Seydi Ali Cissé yaakaar naa pour bañ a xabaabal daal damay jëm teunk tënk yem foofu di wax ne liñ ci teunk yep naa ci téré rek lay mëna door waye du xaj ci ben jotaay rawatina du imam tewé kilifa yi tok ci wetam ñi ngi ñaan yàlla yàlla def ñuy ay taalibe dëgg-dëgg yàlla def ñu ñuy ay royukaay yoo xam ne waxtu nekk dañuy topp ci tànk kii bàyyi gërëm ñi bàyyi gërëm te Seydina Aliou Cissé amul sikk ne bàyyi gërëm na ko nee na mooy sëriñ ay doomam loolu rek mooy signifié ne mooy sëriñ yi sëriñ si ndax doom yi ñooy sëriñ yi seen sëriñ moom mooy sëriñ yi sëriñ si ñu ngi ñaan yàlla yàlla taas ñu ci leeram yàlla guddal i imaam bàyyi ko fi mook mbokkam yu baax yi bañ yàgg leen fii fekk wa ma dalika ala allahi bi aziz